Ahmadou Bamba Thiam ñu ngi lay nuyu. waaw euh, Jacques Gomis maa ngi lay delloo nuyoo bi. di la dalal ci mi FM di fàttali kon yow sa xam-xam dafa màcc ci wàllu cybersécurité nga jiite it waaye tamit sos uh, kuréel gi nga xamante ne moom la ñu duppee TIC protection nga nekkit kuy tàggat ndaw ñi ci wàllu woowu uh, lu ñuy njëkk uh, laaj mu aju ci actualité bi ndax gannaaw boo coowal Ousmane Sonko Adji Sarr juddoo ba léegi ñu koy nemmeeku ci réseau sociaux yi kàddu yu ñàggas waaye tamit ñu dem ba yegg sax léegi ci ay menaces de mort lan moo waral ba ci réseaux sociaux yi nga gis ni yegg nañu foofu tey jii ci senegal waaw euh, dañoo euh, xëy na euh, ka Sonko ak Adji Sarr xëy na moo moo moo lëmbee jamono bi bi ñu nekk nii waaye jëmm saaga xaste waxlu ñaaw yàq dëru nit. yàq àdduna ni chantage yooyu yëpp dafa dafa gis nañ si juróomi at yi weesu dafa dafa dafa dafa dafa bëri Sénégal bëri bëri boo xam ne jéggi na dayoo te li nga xam ne moo ko waral mooy euh, yomb bi nga xam ni moom la int moom moom la jumtukaay yi nga xam ne moom ngay soxla ngir def loolu yomb xam ne lépp loo soxla rek mooy benn téléphone euh, connexion internet wala benn benn ordinateur wala benn tablette toog fu la neex wax lu la neex donc noonu noonu noonu noonu la yombee te ku nekk léegi gis nañu léegi euh, journaliste léegi ñëpp ay journaliste lañ léegi hmm. ku nekk rek nga toog rek bés benn créé bés benn bouton rek li nga bëgg ñi nga bëgg ñëpp jot si ak ak ak euh, ni mu la neexee comme bu fekkoon euh, journaliste yi noonu lañ koy defee donc loolu tax mooy yombate boobu moo tax beneen bi mooy li ñuy wax anonymat anonymat mooy xam nga par exemple ki nga xam day ñëw fekk la sa kanam saaga la wala menacé la da nga koy da nga koy hmm. bi nga xam ne moom la internet am xam ne nit mën a nekk fu mu nekk si àdduna bi taxaw si ordinateur am rek daal di wax lu ko neex ba pare euh, mu mu kenn du xam kan la euh, si tàmbali bi parce que léegi jumtukaay ñu ngi fi ngir xam ñuy def loolu euh, loolu moo tax nit ñi defe na léegi ku nekk mu a nekk si ginnaaw fi mën nekk rek def lu ko neex wax lu ko neex ñaar yooyu moom moom moom moo tax ba nga xam ne. Hmm. mbir yi léegi dafa dafa dafa dafa dafa dafa lëmbee jamono ba noppi. sonal li ñi lool lool lool lool. Mhm. tax na sax ba am suñu naataango yi nekk ci njàkkare jamono ji bokk na ci sax ay politique yi nga xamante ñu ngi leen ciy menacé ñeneen ñi ay kàddu yu ñaaw yu ñuy teg seen dodd ba xam sax yoon ci Sénégal am na lu mu lal ni daan ngir ñu koy def. Euh, Sénégal moom euh, li ñuy wax euh, fondement juridique moom ngir loolu moom manqué wu fi ndaxte boo seetlee 2008 am na loi boo xam ne am na cybercriminalité ñu koy def di jëfandikoo technologie. benn bi tamit mooy loi voté nañ de cybercriminalité ak aussi données personnelles données personnelles mooy lépp loo xam ne information bu suñ ko waxee rek wala ñu junj ko rek dañuy xam kan la moo xam tur téléphone euh, photo vidéo euh, vocal ak yu demee noonu nga xam ne dañuy xam kan la loolu loi encadré na ko code pénal bu mujjee génn ni 2016 euh, loi bi yëpp actualisé nañ ko ba nga xam ne léegi ñi nga xam ñoo def ñaaw def yooyu ñu lim si si si suñu waxtaan bi yëpp saaga yeeg yàq der yeeg injure yeeg chantage yeeg ak arnaque yeeg ak yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ak fausse information yi ak yooyu yëpp euh, daañu da dem ba euh, dix ans ba ba ba sept ans de prison Euh, ba dix millions demande dépendant ci li nga xam ne noonu la dem beneen mooy police ak gendarmerie am nañu unité euh, de lutte contre la cybercriminalité mooy euh, division cybercriminalité police ak plateforme de lutte contre la cybercriminalité gendarmerie ñoom ñëpp ay kii yoo xam ne ñu xarañ ñoo fa nekk yoo xam ne ku am ay jafe-jafe si internet bi ak réseaux sociaux yi boo fa demee man nga mën nga porter plainte seen liggéey mooy ñu ñu ñu taxawal bien que mbir yi jéggi na dayoo jéggi dayoo boo xam ne ñoom seen i moyens seen personnel seen formation saa su nekk dañ ko war a yokk ndaxte dara du si doy. ay bis ci ginnaaw njiitu réew mi Macky xam xamle woon na ci ndajeb conseil des ministres doon soññ sax gouvernement am ñu fexe ba samp fi ab dispositif bi nga xamante ne dafay gën a ñoŋal maanaam di teggat euh, réguler ak encadrer li nga xamante ne moom mooy réseaux sociaux yooyu. Ah, ban solo la idée boobu am waaye tamit euh, li nga xamante ne moom mooy jëf bi ndax loolu mën na nekk ci réew mu mel ni Sénégal. boo seetee ne coono yi nga xam ne moom la ñu euh, si internet bi ak si réseaux sociaux yi fii Sénégal moom lu lu ñu war a euh, dox la lu ñu war a euh, dox ay jéego la hmm. bon boo nekk technique moom lépp mën nekk parce que dëkk yoo xam ne dañoo xëy tëj internet bi donc bu dee ko moom loo ci loo wax rek mën mën na nekk ci ci ci wàllu boobu waaye nag lépp loo xam ne da koy def ci technologie yeeg yooyu da nga def différence entre ñaar yi benn bi mooy mooy mooy liberté mooy ku nekk aussi am nga war nga mën a ak démocratie hmm. ak euh, liberté d'expression ni war na mën wax xalaatam mais nag xalaat boo xam da nga def ci respect ak ci teggin ak ci yar xam nga ak si ak si xam-xam ba noppi tamit euh, protéger nit ki li ñuy wax contre euh, li ñuy wax yooyu mooy diffamation yeeg injure yeeg saaga yeeg Euh, euh, apologie racisme <laughs> apologie racisme xam am na sax Sénégal am na fi gis nañ ko fi euh, apologie violence ak injure ak saaga yàqare ak yooyu yëpp dañ ko war a protéger yooyu dañ ko war a protéger mooy la mooy protection des personnes ak protection des libertés euh, équation la boo xam ne jafe na résoudre parce que li leen li leen wuutale dafa dafa dafa sew lool lool lool lool donc luñ man gisuma projet loi ko déggee ci presse bi la la laa ko déggee mm-hmm. mais xam naa lu mu mënti doon rek nañu sóoraale euh, euh, liberté d'expression mm-hmm. waaw aussi protection des personnes. Ah, loolu la ñi di ragal dëgg ah ndax am loolu finalement du xañ askan wi seen baat. mais loolu Euh, il faut loi bi génn ba pare comme ça ñu xam la moo nekk seen diggante mais si conception bi comme idée bi na ba dem dañuy sóoraal daal ak liberté d'expression en même aussi def li ñuy wax protection des personnes sur internet. Hmm. réseaux sociaux yi. mu nga ko ñuy dégg tamit ci terme yooyu yenn saa nga dégg ñi naan la réseaux sociaux yi ñi naan la média sociaux yi tamit nii ah, ndax am na lu leen wutelee ñaari termes yooyu. Euh, waaw loolu moom dañ koy dañ koy jaxase lu bëri bëri bëri waaye de façon très simple pour résumer ko soo déggee ñu naan par exemple médias médias sociaux médias sociaux mooy li nga xam ne dafay dagale ci ci biiram ay ay site internet yoo xam ne bokkuñu. ak ak seen fonction sociale ay site internet bu nekk ak ak ay ay ay ay ay fonction sociale am xam ni euh, dafa liggéey ci ci ci ci internet bi bu ñu réseau social nag moom li ko tax a jóg mooy euh, lëkkale ay nit li ñuy wax euh, mise en relation def dajale ay nit ñu ñoo xam ne ñu bokk pas-pas bokk gëm-gëm bokk lu ñu bëgg bokk lépp loo xam ñoo ko bokk rek mu dajale leen waaye nag benn partie bu ndaw la ci médias sociaux. ñu wax nag ci leneen lu jëm ci wàllub cyber attaque yi nga xamante ne léegi moo lëmbee àdduna bi sax réew yëpp bëri na ay entreprise yi nga xamante ne dañ ci loru waaye tamit ay particulier ak yenn xeetu arnaque yu ñu ciy gis ndax ñeneen ñi dañ ciy laaj koppar lu waral tey phénomène boobu am doole euh, ci adduna bi sax. baax na euh, nga leeral euh, cyber attaque cyber attaque mooy acte la criminel la boo xam ne ki koy def mu nekk benn nit nit boo xam dafa yore ordinateur war am xam-xam si xarañte si internet wala ci technologie décidé ne day leen daf ko naqari mu bëgg yàq dara euh, euh, créer njom def njombe fenn hmm. wala euh, groupe parce que gis nga si ñu bëri ñoom dañuy bokk xalaat boo gis ki si benn mbir daal di jékki-jékki attaqué benn site gouvernement wala attaqué benn état boo seetee Sénégal ñaari at si ginnaaw wala ñu at si ginnaaw jamono Charlie Hebdo gis nga ne surtout gouvernement Sénégal attaqué wala donc loolu loolu mi ngi si presse bi si attaque la woon loolu donc te dëkk yëpp euh, pratiquement kenn kenn kenn mu si mën aussi nekk état parce que état ba léegi ak li ñuy wax cyberguerre guerre bi léegi si internet bi la nekk internet bi la nekkee donc ñu bëri aussi état wala dañuy jaar si internet bi yàqal euh, seen yeneen moromu moromu état wala euh, li nga xam ne moom la ñu leen bëgg jël wala wala wala lor leen. léegi nag beneen bi nga xam ne moom nga posé mooy ransomware yi nga dégg ne xam da ngay jékki-jékki rek Euh, nit dugg si benn entreprise euh, euh, attaqué si seen entreprise boobu ba pare jël données yi nga xam ne moom la entreprise bi am def ci loo xam ne daf ko naan boo ma joxul xaalis dama koy bloqué soo ma joxul xaalis du ma ko débloqué xam nga nga xam ne léegi boo bu ko débloqué wul dafay dafay dafay daf du ko débloqué ba dafay daf daf koy effacé si entreprise te ñëpp xam ne entreprise moom bu ñuy attaqué ay données attaqué information rek daanaka day daanu parce que eh, li muy liggéey yëpp si si information yooyu yooyu yooyu la nekk euh, nga xam léegi dafa nekk lu xam ne mi ngi yaatu lool lool lool lool ci àdduna bi ba noppi di bëri di bëri bis bu nekk te li ko waral mooy yooyu ñu la wax noonu te boo seetee Sénégal tamit deux mille vingt ak deux mille dix lool ci secteur financier bi ndaxte ñu si bëri si ñoom dañu ñu nekkoon ay victimes. Euh, si ay si cyber euh, attaque ay nit jigéen attaque seen système euh, jël ci jël ci xaalis donc sonn nañ si lool ñu bëri dañ ci sonn lool ci at bi du Sénégal kese dëkk yu bari la waaye Sénégal moom loru na si bu baax a baax a baax a baax secteur financier bi fii hmm. donc pour ñëwaat ci loolu yëpp wàllu sécurité mooy mbir moo xam ne li ñu li ñu li ñu war a xalaat la. Hmm. mu ngoog léegi nag ñu wax ci lu jëm ci attaque yooyu muy xeetu kon euh, dérive euh, muy wàcc yoon yu nemmeeku ci internet bi ak cyber attaque yooyu yëpp ngir muslu ci lan la ñu war a def. Euh, léegi ngeen moo gis euh, moom xam nga bi si gën a si gën a simple moom laay tooñee sama xarit yi ñu ne daal mooy mooy bañ a utiliser technologie <laughs> waaye xam nga loolu mënut a nekk xam nga. Mhm. léegi euh, bu ñu ñëwee ci solution yi ñaari pàcc la pàcc bi nga xam ne moo concerné état mooy ñu fexe ba nga xam ne lépp luy système d'information ñu koy gën a protéger ba noppi kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo yore wàll boobu mooy. Euh, protection euh, système d'information sécurité système d'information kuréel yooyu dañoo xaw a bari ñu fexe ba ni ñuy fexe ba lëkkale leen ci benn buum su defee ñu ñëpp ñu xàccandoo di dóorandoo parce que dispersion bi nga xam ne moo am ci gestion sécurité système d'information euh, dispersion boobu ki ci profité mooy ki nga xam ne dafa dafa am ay intention yu bon ngir yàq wala ngir indi musiba te moo tax fokk ñu xalaataat ni ñu ngi fexe ba harmoniser euh, euh, liggéey boobu noonu liggéey gestion cybersécurité Sénégal ñu harmoniser ko loolu defe naa lu ñu lu état euh, wala wala wala jóg la ci li mu gën a gaaw ndaxte lu dina si dina baax lool ci ci protection système d'information bu réew mi te dëkk yëpp sax yu bëree bëri am nañu problème boobu du Sénégal kese moo ko ñaareel bi mooy. ñuy yee nit ñi parce que man boo seetee association bi ma bi ma bi ma bi ma sos bu tudd TIC protection TIC protection loolu moo ko tax a depuis dix ans maa ngi wër yi rajo yi euh, ci école yi université yi fu nekk fa dem di yee nit ñi ci ci euh, ci musiba yi te maa ngi sant baax a baax yéen ñi waa Rewmi FM euh, sama partenaire ngeen mos a nekk ci wàllu boobu ak aussi presse si jàpp a baax a baax a baax ngir yéen nit ñi si musiba yi nga xam moo am ci internet bi ak naka la ñuy fexe ba mucc si beneen dara bu xewee di si wax te ñu si bëri si wax parce que moo xew mais ñu si bëri li ñuy wax xamuñu si dara donc ñuy fexe ba ñi nga xam ne ñoo ci wax acteurs yi si wax mu nekk ñoo xam ne xam nañ ko beneen bi aussi mooy ñu jàppale leen donc nañ ñi nga xam ne ñoo ci nekk ba noppi ñu xa ràññi leen si ba pare ñu ñu ñu ñu ñu ñu yéene lépp weesuwul yéene kese la man mi sama bopp la laa gars chaque fois man naa jàppale Sénégal dëkk la boo xam ne ñëpp ñoo ko moom bu yàqoo ñëpp a yàqool su baax ñëpp a baaxal donc ku nekk dafa war a indi dafa xamoom wala wala xelam ci ci ci ci luy jëmee kanam réew mi rawatina ci domaine bi nga xam ne mooy cybersécurité ak internet réseaux sociaux ndax bu si jugalee dina indi musiba bu mag a mag a mag a mag ñaari mais terminé mooy euh, loi loi boo xam ne dafay gérer lu lu jëm ci wàllu cybercriminalité internet réseaux sociaux technologie loi la boo xam ne dafa dynamique dafa war di sob saa su nekk dañ ko war di actualiser ndax bis bu nekk lu bees loo xam ne musuñu ko gis musuñu ko xam dafay génn donc loolu la boo xam ne dañ ci war di ci liggéey saa su nekk di ko actu di ko actualiser beneen bi aussi bi mujjee mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yore loolu ci Sénégal mooy police ak gendarmerie ñu gën leen dooleel ci wàllu xam-xam ci wàllu euh, personnel ak ci wàllu euh, moyen comme ça ndaxte liggéey bi du muy gën a dem muy gën avancer te si ñoom lañu lañu la la ñu yaakaar euh, ngir euh, saafara benn parti ci si si jàngoro bi ndaxte population bi ku ci am problème si ñooñu ngay dem porte plainte expert nga ci wàllub sécurité jiite te daal di sos association bi di TIC protection euh, di kon tàggat tamit ndaw ci wàllu wi sëñ bi Ahmadou Bamba Thiam ñu ngi lay gërëm bu baax jërëjëf Jacques Gomis sant naa la baax baax di jaar naa tamit waa Rewmi FM yëpp di leen gën a encouragé ci seen liggéey bu rafet bi